waaw man de suma kilifa ga yàlla na ko yàlla may. yokk leeram xare ko ci aljanna yi gën a kawe mooy Ousmane Tanor Dieng Ousmane Tanor nga xam ne mm-hmm. euh, mooy suñu maître politique mm-hmm. daf ma doon wax naan ma on gagne à terre ce qu'on n'est pas obligé de dire si tu n'es pas obligé de quelque chose ci gagne à terre te loolu moo tumurange ci réew mi léegi kuñ dékkal micro rek nga yàq ne lu la neex nga wax te wax nag dafa dafa doy waar mm-hmm. dafa doy waar te mun naa taal sax réew te man de ci li may gis bërki démb rek premier ministre Amadou Ba mi ngi ko mm-hmm. doon wax assemblée ne ko man de gis naa la ñii nga nekk ni bu ci dugg continuer ci yoon wi nga meloon xam nga dafa am nit da am étiquette dafa am solo ci nit c' est pas parce que boo génnee ci mbedd mi wala ñi ma bokkal di toog ci plateau bi ñu ngi wax lu leen neex rek dama war a wax comme loolu. dëgg la nit da ngay am identité gëm sa bopp. gis nga soxna si ñun ñii fi ñu dajee ci mbedd bi ku nekk da indi ak timbre boo xam ne sa papa ak sa yaay moo ko taf ci yow. sa papa ak sa yaay liñ def ci sa biir kër. Mhm. bul nangu génn ci mbedd mi dajante keneen ku papaam def leneen nga xeeb li papa def ci yow. ba bàyyi li sa papa defoon di def li papa keneen def ci yow ñun li ñuy wax ak li ñuy jëf ñoo ngi ko jëlee ci suñu kër baay jaaraat ci ay lox ak ay kuréel ñu yokk ñu ci ci loolu. te loolu am lan bëgg mooy ça veut dire ne nit ñi dañoo war a bàyyi toppandoo ci lu bokkul ak yow. d'accord te réew mi ñi fi dëkk bokk fi war nañu bañ surtout ndaw ñi war waruñu nangu. ay nit yu ñu bokkul ay réflexe ak ay source di ñu influencer réew mi warul doon réewu wax ju ñaaw wax ñàkk kersa saaga mag toroxal kilifa yàkkante lu bon xaywante sutura mm. loolu du sénégalais te il faudrait que ñu retourner à ça justement gis nga am na lu ñu doon wax la république des valeurs c'est important li Tanor doon wax dernière Euh, élection bi mu la république des valeurs parce que y a une crise des valeur dans ce pays mm. et loolu on en a besoin pour repositionner notre pays teg ko ci ligne bu am solo li ngeen wax nag nit ku nekk nit nga soo waxee ba jàpp ne juum nga nga baalu mën nañ la baal waaye ki nga tooñ moo la mun a baal <laughs> crise des valeurs sa ça se retrouve à tous les niveaux hein? justement ouais, jusqu'au plus haut non, bien sûr je parle du Sénégal en général mhm. en général fii dafa tumuranke merci beaucoup mais bu ñu jàpp nit mu wax nit mu wax du nit dara waxaat rek ñu ne nañ ko bal kin tooñ moo yëg moo xam lu muy saf. ak fu mu ko tool ah waaw kooku moo mun a baale. parce que maandu aussi dafa am solo ci waxtaan. donc donc donc. waaw moom laa wax ma ne. dama ne dama ne ba mu koy ñaan ci njëkk mu ngi mel ni ginnaaw bu taw oustaz dama ne dama ne dama ne ci toogoon ñëpp mu ne bu ngeen ñaan leen ma ko ci njëkk rek ñaan na ko ko ci njëkk na ndax ba mu ko koy ñaan mu ngi mel ni ginnaaw passé mais dama ne dama ne que le qu'on ne se substitue pas à la place de la victime loolu